alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah bismillahi rahmaani rahim eh, kilifa gi ñu ngi lay ziar di la ziar di la ndokkeel di la nuyu ci suñu tur waaye surtout ci turu son excellence président de la république Bassirou Diomaye Faye defe naa barki démb ma ngi woon fii ngeen dalal ko xolam sedd ci lool nag ci niñ ko dalalee fii ci dëkk bu tedd bi eh, doore ko ci kilifa gu màgg gi eh, sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ba ci yow mi yor kàddu yoon wi ak mbooleem seen njabootu sëñ Touba waaye surtout également lépp luy population Touba sànq bi may ñëw ci suba ñu waxtaan mu ne ma boo demee feddi la leet waat bu baax a baax a baax sama mbégte ci sama visite boobu ma def foofu donte gàtt na lool waaye sama xol sedd na ci di leen ziarit ci turu gouvernement bi yëpp nga xam ne yàlla dogal na maa maa leen jiite ñenn ci ñoom ñoo ànd ñëw di la ci sama turu bopp ni ma ko waxee en tant que man Ousmane Sonko am mbégte ci teew fii ci bës bu mel nii ci jamono yi nga xam ne li ñuy màggal lu jara màggal la muy loo xam ne source d'inspiration la pour ñun ñun ñëpp képp ku jóg rek ne am na loo gëm te bëgg nga dox ci lu koy dëggal ak lu koy saxal Cheikhul Khadim royukaay la exemple la ndax kenn ci ñun du daj li mu daj ci gëm-gëmam kenn ci ñun mënu koo daj kon ñëw teew fi ci bés bu ni mel mbégte la yaakaar la yi tamit ni lii nga xam ne ñu ngi koy sumb muy nguur gu bees lii di premier màggal bu mu tombeel am yaakaar ni lépp loo xam ne barke la bu woo xam ne dina ballee ci màggal gi dina doon luy yóbbaale nguur gi waaye yóbbaale walla ëmb Sénégal yépp euh, président nag bi mu fi ñëwee defe naa am na lenn lu mu jukki lu tuuti ci yéeneem ci dëkk bu sell bi di Touba ma koy feddali fii ni ma ko waxee sànq ci eh, bi ñu nekkee ci xalif bi mun naa leen wax ni yitteem la boo xam bés bu nekk mu ngi ciy wax ak ñun defe naa bi ñu toogee léegi it eh, jëwriñ yi seen tànk bari na loolu ci dëkk bu tedd bi te dara waralu ko lu dul ñëw ànd ak waa dëkk bi te kenn ku ñëw bu mu dellu see defal na ma compte bi ku ñëw it ñëw na leen gis ngeen waxtaan ngeen jox ko ay tegtal ci li ngeen bëgg ci dëkk bi mu doog a ànd ak service technique yi dem doxal loolu kon loolu benn firnde la ci yitte gi nga xam ne am nañ ko ci dëkk bi xanaa kay liñ ci yokk mooy di sàkku ndax yéene yaa ngi fi yaa ngi fi te farlu bi ak détermination bi ñu ngi fi waaye nit ñun ay jullit lañu nit dangay def sa pexe waaye da ciy boole ay ñaan ngeen féete ñu nag foofa lépp luy suñu yéene ci réew mi waaye lépp luy suñu réer yéene fii ci dëkk bi ñu ngi sàkku ngeen gunge ñu ci ay ñaan waaye yemul ci loolu ndax ñun xam nañu suñuy nitu diine bëri na loo xam ne dañ koy askanale ne lii mbirum diine la lii mbirum àdduna la yéen toppatoo leen mbirum àdduna ñi topptoo mbirum diine waaye xam nañ ni suñuy nitu diine gënuñu leen xam li jamono laaj li àdduna laaj ndax bés bu ne ñu ngi jokkook ñoom di jëflanteek ñoom di ànd ak ñoom di liggéey ci bépp fan kon gannaaw ñaan yi ñuy sakku ngeen dugal ci seen loxo ndax bu ñepp bokké pousse jëm ci benn direction gëm na ni eh, mënul ànd ak bu boba mbir mi dina barkel té dina yomb ci ñepp kon sëñ bi ñu ngi leen sakku ci lolu ni programme bi nu mu yaatu yaatu yaatu yaatu dama faral di wax ni senegal ko bëgg a defar deug deug dëgg so bëggee noppalu en tant qu'homme politique fexel ba nitu di diine xam fa nga bëgg jëm te ñu jàppale la ci boba bu yebbo nga xam ni mën nga dem noppalu ji kon lolu moy loxo gi ñuy talal di ñaan yalla li ñuy célébrer ci li ci fan yi muy grand magal de Touba lepp luñ ci liñ ci jubluwoon lépp luñ ci xaare ci yiw ci barke ci tiyaaba waaye ci développement parce que loolu ngi ci mbàkkal gi yàlla nañu ko yàlla def jox ba jox ñu lu kawe suñ njort sànq damay waxtaan ak kilifa gi ma ne ko même suñu programme tourisme ak développement tourisme religieux bi ndax dëkk boo xam ne fu la nit di fu ne la nit di bawoo di fa ñëw muy sénégalais muy kudul sénégalais dëkk boobu waruñu jàpp ni rek mbir mi mbirum spiritualité la kese waaye nuñ koy tabaxee ba mu lënkalu ak koom loolu dafa am solo tey boo demee Arabie Saoudite Makka ak Madina ville touristique la boo demoon Fès moom nga fay fekk ñu xool nu ñuy développer complexe touristique bi complexe hôtelier infrastructure yi bër lalu ñuy komkom. loolu mooy koom-koom te loolu it mu nga ci suñu biir programme bi nga xam bëgg nañ ko doxal su ci ndigalu sëriñ bi ak seen jàppale yéen ñëpp kon mun nañu bañ a guddal wax ji euh, am mbégte ci teew fii ci bés bi di feddali ni président basiru Diomaye Faye dafa talal loxom mboolem seen Sénégalais yi rawatina kilifa diine yi ci jàppale ko ci li nga xam ne mooy sas bi gouvernement bi feelu ko ci loolu te am nañu yaqin ni loolu dinañ ko fi fekk bu soobee yàlla kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatulah wa ñu ngi sof rek suñuy kàddu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne. moo fi nekkee Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu koy ñaar mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kàddu yi nga xam ne léegi nga bàyyi ko ci moom te jox nga jox mu ay kàddu mu wax mu waxal la bopp mu ay kàddu nga déggal sa bopp kon liñ ci def rek mooy mottalil ko kàddu yi mu ñu digal ne nañ ko jot li jëme ko ci sa jëmm ji kon premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi lay delloo am nuyu bu baax نكو القران سنتاني واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها كون ني لي دارال جام باخ اك مبالم ديليغاسيو بين ادب بيب ديلا يوبنتم نيو تي سخرت بريسان لا ريبليك بشير جوباي فاي nga xamne yeen ñaar jënd jëmu gën té loolu té moy ñëriñu sénégal kon ñi ñaan bu baax ñi leen di ñaanal yàlla suñu borom yaakaar ji nga xam ne réew mi am na ko ci yéen yàlla suñu borom mottali ko ndax mu nekk njariñu ñëpp di nuyu itam sa ndax Touba moom eh, liñ fi am yombut tawféex la rek jëloo yàlla defal te sëñ Saliou daana wax ne xolo murid yi fu mu jëm fa la xolo suñu Touba jëm am nga tawféex ju rëy na ci taalibe suñu Touba yi bëgg gi ñu la bëgg ak fonk gi ñu la fonk fi mu àgg sax yow mënoo ko xam kon boo doon lim ñi la fi nekkal sax day bari ndax kon ñu ngi koy tàmbalee ci Serigne Cheikh Thior mi nga xam ne moo leen jiite ñoom ñëpp nekkale ci dëkk suñ doom te sa digg moom yàgg te rafet nga am coom kóolite moom itam wàccoo naa yow ndax nit mën tuweesu ab taaw mu tuddi ko ba ci Serigne Assane Mbacké mi nga xam ne moom sama dooma waaye mooy ab taaw man la ko tuddee yàgg na ko daama juróom ñeenti at wala juróom Serigne Moustapha Diouf Lambaye moom mi itam maam ji ñi njëkk a topp suñu Tuubaa la ba ci Moustapha Lo mi nga xam ne baayam day sama wóllare loolu Moustapha Cissé Lo ay ñu ci des yëpp ak Serigne am Serigne am di Mbàkke ak Cheikh Baara Cheikh Baara ko am ci man ko am ci ak cofeel la mu bàyyiwuma kenn boo limee da ngay juum waaye dellu am nuyu bu baax di bég bu baax a baax di waxit nga sant yàlla sa borom ndax kam min ni'matin fii tayyi niqma yàlla suñ borom néew na kum defal ab cër te jaare jaarewu ci nattu nattu yàlla koy def Sëriñ Tuubaa da daa wax ne tubaab yi nga xam ne ñoo ko fi jëlee woon yóbbu ko bitim réew nee day sant yàlla ci ñoom ndax buñ defutoon liñ def cër bi am du ko am kon yow itam nattu bi dafa may noonu rek nga ko noonu nga ko gisee waaye nag dund dund nga ko ci dignité nag te loolu jàmbaar jàmbaar dëgg ndax mosoo mosoo saalit mosoo saalit fu mu gën a mettee rek yaa ngi woon ak njàmbaar loolu nag. adduna da koy soxla ni ki nga xam ne kilifa diine dafa war a ne ci kanam nekk royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana adduna itam ñoom ñaar dañoo ànd nitug adduna itam waxtu ne war naa am li ñuy wax margin te mooy ab delluwaay ndax yaakaar moom bu xasee jeex ci àdduna rek lu ne mën naa xew kon nit ñi moom fépp fu ñu jëm rek yaakaar a ñaar nag yo yoo ànd mënuñoo tàggoo waaye waruñoo bokk fu jëm bu kilifa diine gi ne ko sëriñ bi daan misaal ci alxuraan rek daa fa wax ne abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunaa ilman bu kilifa gi adduna yi te inna makkannaa lahu fi l ardi wa aataynaahu min kulli sababan fattaba sababan kon nag loolu yaakaar ji nga xam ne nit ñi am na am nañ ko ci yow yaakaar dafa am solo te loolu du ñëpp ko am ndax xëy na ku jug du politique rek am ñu topp mbooloo topp la waaye cofeer gi ni ñaam am ci yombut ak politicien bu ko am loolu nag kon yow itam li nga mën a delloo njukkal Sénégalais yi mooy nii nga tàmbulee rek mooy bañ a fàttaliku sa démb te xool li ci sa kanam. la sëñ Saliou waxoon président Abdoulaye Wade ba muy door a toog yoon ba mu fi njëkk jow wax ko ay xalaat yu bari sëñ Saliou ne ko daal li ma lay digal mooy yaar ba mu màggal Tuuba la sax bi mu falo ba ci màggal ga mu ne ko lépp loo defoon Tuuba këri diine yi ci des fu ci lay wàllam na ko fa def ba ca des bul gees sa ginnaaw ndax loolu bokk na ci liy dimbale nit kon yow itam bokk na ci li nga war a gën a sant yàlla mooy nëgë ne daaw yaa ngi woon ci biir kaso nekk ci gerew de ren suñ boobu jox la cër bi yàlla na bu la xasee bu la xasee ba fayul la la dese mooy sant ko te loolu ab cër la ni ma la ko waxee rek boo doon xool ñi ko mas am ci ñi fi jaar ci politiciens yu bariwut waaye li ci ëpp solo rek mooy baat yooyu moo waxoon mooy dund nga ko ci dignité dund ko ci fulla te mosoo saalit ba ca sit muy lu ma seetlu sama bopp mooy mosuma gis ngay politique mbirum diine ndax yàlla def na deux mille deux mille vingt deux Serigne Cheikh mu suñu Saliou yàlla def na xam naa sa digg moom. mu ëmbal ak cofeel goo xam ne doom jum jur sax mënu ko weesu doxalu sa digga mu kenn te Sëñ Cheikh xam naa ko Sëñ Cheikh jëmb la joo xam ne du nituk àdduna nituk àdduna mënu ko tax a jàngi benn benn benn dërëm ndax maa ngi fàttaliku 2011 président Abdoulaye di ñëw na fa di ko gane si bañ ne suba maître ma jëkkee indi andi ñaar mi million maa moom ak yàlla ak ñaari doom rek a guddi la sax ay onze heures ci guddi minuit ne ko président ne dala ko bëggoon a jàppale ci ñan gi ndax bëgg mu am suutor moo tax mu jox la ko bu sànni woon keroog falaa faral maa ko gàttanu suñ sant ko ci ba noppi ne ko nag waaye waaye nee ko maa ko war a jàppale maa ko war a jox nee ko bu ma ko jëlee day mel ngan gi kon xamatuma lu may nuru ndax kon deme ne ku dugg ci restaurant di jënd rek la daal koy delloo kon suñu Cheikh moom te li may wax yàgg na naka jekk noonu la ko yàlla bind ma xam sa digg ak moom ba ngay ñëw itam di jël sa jëmm di ko ko jëbbal jàpp naa ne mosoo ko wax te moo la ko tere te mosuma dégg nga wax ko tam jàppal tam jàppal la ko lool ma xam ci lu bare bari loo xam lu ñu mën wax ci rajo. mu ëmbal la cofeel ëmbal la yiw nga àgg ko foo xam ne mosuma gis ab politicien bu ko am ci moom kon loolu rek doo dee la sëkk ñii ñii la nekkee ci dëkk bi itam wàccoo nañu yow nañ joxe ne joxe nañ seen jëmm joxe seen bakkan joxe seen lépp waaye nag ni nga tàmbalee yow itam dal nam xel ndax bi nga jugee rek xam na ne Sénégal gépp leen seq waaye cër bi nga beral Touba adduna sépp xam ne kon delloo nga leen jukkal loolu nag kon ci turu Cheikh mu taxa ak ci turu yoon wépp ñu ngi leen ci sant di leen ci gër bu baax màggal gi itam wax dëgg li ngeen ci man def ngeen ci li ngeen man def ngeen ci li ngeen mënut def ngeen seen yéene waaye def ngeen sax ba def loo xam ne séntuñ ko woon ak fi jamono toll te ñeenti weer juróom weer bëreegut ku xam fi àddina toll da nga xam ne dara mënugut a dox waaye teewut la ma waxoon président bi kaaru rek sëriñ bi dafa wax ne yàlla day fay yéene door a fay jëf te yàlla def na am na loolu sax mënoon naa ko bañ a waaye day baax taalibe yi it xam ba yàlla defee président bi toog ci réew mi yow mu def la premier ministre Cheikh mu Mountakha booba nekku fi sax fan yooyu waaye ñaanal la ne yéen ñaar ku mel ne si Moustapha boo ko daan la ci wax dara ne maa ngi mi ngi ñaan seen ànd bi yàlla sàmbal leen ko ndax yaakaar ji nit ñi am ci moom ba ca des it fan yii itam seereel na ma ne ñoom de seenu xel sama xel dal na ñoom ndax xam naa ne ay jullit dëgg lañ te am nañ yéene fa seeni liggéey réew lool na kon ñoom buñ la seeree la loolu kon doy na sëkk kon li ci res rek mooy góorlu te xam ne ni yéen a gi ci di leen ñaan itam yàlla suñu boom gindi leen taxaw leen te ne sëñ Abdou Lahad dadaa wax ne nguur yaar rek ci nekk nee na moo ko weer ñooy am nee na lu ci màgg rek lëndëm daal di wax ne it ni mu baaxoo itam mooy booy booy booy ñëw dañ lee tàcc booy dem ñu waxoo la loolu nag kon ku ko sóoraale rek mën na laa bañ dal ndax nit ñi moom di fi yaa leen di jege ndax faj aajooy nit ñi kenn mënu ko faj suñu borom wax ne wala bashata llahu risqa li ibaadi la baxaw moom mi nga xam ne moom naa jox ñëpp pour sax sa def ko waaye ne li am solo mooy ak yëg ci nit ñi ak jege leen di leen diglu di ànd ak ñoom li nga nekk la ca nag yàlla mi mënoon a defar adduna si defal ko ba ca des sëñ Abdou Lahad daa waxoon ne yaa rekk fi ne ki la xëye ak ki la gontoo mooy ne ki xëye daa tëdd ba guddi xalaat ba ba sonn xele mépp daj la neen rikki nag na nga feex ba yaakaar ji bu mu tase ci yow nee na ki la gontoo itam yaakaar dafa dafa xëy woon feneen yaakaaram tase fu mu ñëw ci yow kooku na nga feex bu yaakaaram tase ci tase ci kon daal ñi nga xam ne daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax dëkk bi moom sa liggéey ñoom leer nañ ndax li nga am ci ñoom moom ñu ko ci mën a ñu ko fi am bëriwut daanaka dama leen di tooñ sax naan leen li may fàttali daal diggante Abdoulaye Wade ak Murid yi loolu yàlla defe na ko sa liggéey ñoom loolu nag kon ñoom wàccoon nañoo yow yow itam ni nga tàmbalee dal nam xel sa rafet na ci jot. te ñu duñu seer kenn duñ xamut ndax bu ñu buñ gisuloon loolu ci itam dañ cee maandu rek ndax noonu la ma yàlla bindee waaye nag nit moom boo gisee yéeneem xam fam jëm lañ lañ ca war a seer danga koy seere ko ñu jeexale foofu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala